oui bonjour Maria. ñu ngi lay nuyu yaa ngi foofu Ziguinchor euh, nekkal ñu foofu yow waa 7TV quelle la situation en moment. waaw li ñuy mën a jàpp mooy euh, c'est vrai la chambre euh, criminelle jël na décision. renvoyer le procès dans l'affaire Sweet Beauty ci euh, jusqu'au 23 mai mais loolu taxul euh, xale yi dellu gannaaw ñu ngi euh, à quelques mètres serew loolu moins de 100 mètres ci sama droite kër Ousmane Sonko foofu la ñu taxaw nii di def le direct yéen a ngi gis xale yi di dem ñu ngi taxaw fii boobu ba léegi dégg nañu décision bi mais ne nee nañu bu ñu renvoyoon le procès euh, ba fekk ñetti weer wala sax li ko ëpp ñoom fii lañ dëkk dañ fi toog mooy wone ni am na non seulement engagement mais détermination protéger ki nga xam ne mooy seen leader euh, Ousmane Sonko mi nga xam ne euh, mu ngi ci këram ci këram ci quartier bi lañ nekk di Néma fi nga xam ne Sonko dëkk ñu leen di jottali ni depuis dimanche mobilisation bi dafa tëju am doole ci na ci euh, kër Ousmane Sonko ñu tàmbale ko ak jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk sol lu ñuul takk sër euh, yor ay kalabas euh, nekk di wëy fecc muy ab cérémonie traditionnelle boo xam ne moom la ñuy def ngir protéger kii di Ousmane Sonko. Euh, bu loolu wéyee am na aussi ay ndaw yoo xam ne yi fi nekk ñoom it taxaw euh, ñu yor ay ay xeer euh, ku nekk ak gannaay bi nga mën a yor ñu ko ngir mën a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy force de défense et de sécurité fii nag tali yi dem ci kër Ousmane Sonko yëpp lañu bare kenn mënu fiy jàll moto yi daawatuñu oto yi aussi benn oto dawatul yenn oto yi nga xam ne ñoom ngay faral di gis mooy euh, ambulance wala mu nekk oto yoo xam ne ay sympathisants wala ay militants Pastef ñoom ñoo koy dawal yor ko gis nañu tey ci suba euh, oto boo xam ne ñëw na fii ngir indi mburu ak ndox pour jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy militants yi ñoom ñoom ñooy manifestants yi donc euh, muy wone ni situation bi fii comme ni ñu koy waxee ci tubaab la situation reste tendue donte sax euh, la décision de renvoyer le procès au 23 mai a été prise mais pour l'instant moom la ñu loolu la mën a gum jàpp ci li xew fii ci euh, Ziguinchor rawatina fii ci kër Ousmane Sonko. xam ne jeunes yi ñu ngi foofu euh, Birame defe naa ne ñu ne yi ñu ngi foofu ci kër Ousmane Sonko avec les femmes ñu nekk fa pour ko mais bon xëy na amaatul lu ñuy wax confrontation ak ñoom ak ñi nga xam ne ñoo di armée bi. oui mais moom kay loolu laa bëggoon laaj Sékou force de défense et de sécurité yi euh, dañu replier wu wala dañu taxaw euh, di xaar euh, parce que démb amoon na affrontement léegi comme jeunes yi ñu ngi yor seeni force de lord yi ñoom dañu taxaw di xaar wala wala daal situation sécuritaire bi nan la demee waaw la situation sécuritaire ci euh, pour tontu sa question ci li nga xam ne moo wër kër Ousmane Sonko quartier Nema man maa ngi fii depuis ce matin euh, depuis huit heures maa ngi fii gisuma euh, benn policier ma gendarme ma beneen corps militaire ay ndaw rek ñoom ñoo fi nekk c'est vrai que boo génnee kër koñu Ousmane Sonko di quartier Nema di nga gis ay ay groupe policiers yu taxaw li wër fi nga xam ne Sonko dëkk ma fi benn policier gis ma fi benn gendarme ma fi benn corps ay manifestants ñoom ñoo fi nekk taxaw ils sont sur le qui-vive. lu leer na léegi nag yeneen xam euh, nga xam ne ñoo askan wi ñi demoon foofu fekki Ousmane Sonko est-ce que ñu ngi fa toujours wala ñoom itam dellu si nañ euh, juste rappeler que euh, moom Sékou dafa nekk Ziguinchor en direct euh, bu ci li nga xam ne moo di la même journée avant première donc c'est normal ñuy xaw a am un boobu mais Sékou loolu lañ bëgg xam ba xam ndax ñi nga xam ne moo di leaderu Yewwi Askan Wi ñi fa nekkoon ñoom Déthié Fall et autres ba tey ndax ñu ngi foofu. seen conférence de presse ak seen waaw jusqu'au nouvelle Déthié Fall déjà ñoo bokkoon avion bu ñu ñëw à Ziguinchor démb si ngoon moom euh, néewoon na dafi fanaan donc euh, certainement euh, vu que procès bi renvoyé nañu ko mën na am mu jël décision ne day dellu Dakar mais en tout cas fii la fanaan déjà amoon na yeneen leader yi fi nekkoon yu ñëwoon bien avant Déthié fal muy Malick Gakou Aminata Touré y a aussi yeneen leader yoo xam ne ñu ngi teel ñu ñëw fi ci Ziguinchor euh, ñoom ñu ngi fi ba léegi euh, mën na am puisque le procès a été renvoyé au 23 mai mën na am euh, ñu dellu tey pour l'instant amaguñu ay informations précises ci seen retour à Dakar mais au sait que ñu ngi yoon fii Ziguinchor moom moo ñu fa nekk précisément au quartier Néma bi nga xam ne foofee la Ousmane Sonko euh, dëkk li ñu ci mën a jàpp rek euh, defe naa bu ñu ko résumé Birama euh, mooy que ne jeunes yi ñu ngi foofu toujours ñi nga xam ne ñooy jàppale Ousmane Sonko femmes yi ñu ngi foofu di def li nga xam ne rek nee mooy ay fecc ak yooyu mu mel ni comme dafay laal li nga xam ne moo di culture bi foofu waaye itam leader yi ñu koy laaj waa yeewee askan wi amuñu information que ñu ngi foofu wala replier nañ mais li gën a leer ba décision bi nga xam ne mooy wane que ne le procès a été renvoyé jusqu'au 23 mai mais n'empêche que ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale Ousmane Sonko ñu ngi foofu la ñu loolu ci mën a jàppandi merci Sékou Diémé en direct de Ziguinchor ce qu'on va faire